am na bu ko ñetteel muy tana muy inna ansalnaahu fii laylatil qadr muy nusulul quran fi ahadi layaalihi min al awtaar kama tafaddala bihi baad al ulama su fekkoon ne dafa yem ci ne ñaar yooyu waaye daf ne laylatul qadr kon muy yetti yëf yoo xam ne doy na sëkk weer wi doon weeru ngëneel waaye mu tegaat ca ne weer woo xam ne am ngeen ci yett yëf yéen ummatu muhammad sallallahu alayhi yoo xam ne yéen dañ leen koo jagleel walif ñeneen ñi muy yett yëf yan muy rahmatullahi wa maxfiratuhu wa itquhu anin naar yàlla ci weer wii mu def njëlbeen gi muy yërmande def digg bi muy njëggal waaye fukki fan yi mu def ko muy goreel ci sawara kon yaakaar naa ne kenn amul lu ëpp yooyu sunu boroom wax waaye am na yeneen yoo xam ne dana am ci biir fukki fan yu mujj yi muy nusulul malaika maa ibad rahman wa yabituuna fi lmasajidi maahum wa maa sayiduhum wa maa sayidihim jibril alayhi salaam am na beneen bu ci bu gën mag mooy malayka yi ñëw tey bàyyi ko fa yàlla te kileen di jiite mooy sayiduna jibril alayhi salaam lan lañuy def ci bés bi ak bu ñëwee salaamun hiya xatta matla'il fajr amuñ leneen lu ñuy def lu dul salaamun hiya xatta matla il fajr kon mbokk yi al asru al awaaxir min shahri ramadan al mubarak moo nekk nii fukki fan yi ci mujj moo tax ku xam weer wi danga koy namm waaye suy bëgg dem da koy nimse da nga koy namm mooy da bëgg mu dikk waaye su dikkee bëgg a dem it koy nimse da nga koy nimse kon nag nu def ci taj tajdiidul himmati wal ictinaau bi ihyaai sunnati nabii sallallahu alayhi wa sallam te mooy defaat ci yitte faalewaat faalewaat fan yi des bala noo rëcc nañ faalewaat bés yi nga xam ne moo des bàyyiwaat ci xel bu baax yeesalaat sunu yitte nañ yeesalaat sunu yitte ci fan yi ci des ndax mbir boo koy bu lay bëgg rëcc danga koy wan ni ko yëg naa la yaasal busaaraati wal ayaati wa suwar xam nga loolu xasida la sëñ Tuubaa moo ko bind bii yaa xayra dayfin ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adad dama laa namoon lool ngay sama gan waaye kon nag tey jàll sil fekk nga ku la mën a ganale lu ma am ci lu rafet lu ma am ci lu baax dana la ko génneel yow weeru yàlla wii di sahrul mubaarak sahru ramadan ba muy dem nag la koy way woy woowu ma njëkk a wax te muy yow borom yow borom laay rafet yi yow weeru alxuraan wi yow weeru yiw wi yow ki nga xam ne yaa nu yóbbul fa sunu borom sunu yiw wi xoolal mas na koo jàng lu njaareem istaqra'uhu fi yawman ma faxat katabahu Cheikh Mouhamad Amin Diop Dagana nee na sëñ bi toog na jàngaloo ma xasida gi ma jàng ko ba nopp mu ne jàngal mbokk mi wala rakk ji ma jàng ko ba noppi mu daan diggante ñaari yaay yii lekkuma fi luñ togg ci cin kooka kooram bokkut ak sunu koor ñun diggante yaa mukrima day fi ak yaasal bu saaraati nee na lekku fi lu cin togg kon lan la doon lekk moo tax nga dégg ñu naan da daan def bu dog masaan jot mu dem ci garab rocc ca laal ba mu laal ci taq ci loxoom mu laal ko ci làmmiñam ngir xam ne dog dafa bokk ci sunna yi wisaal yonent bi leen ko jagleel sallallahu alayhi wa mu doge ko su xadd jotee ne amoon na xaal da ci daan sëpp loxoom wala ab beref kooku tabarakallah noonu la daan def ak manque de moyens yi mu amoon yépp terewul mu daan woor weeru koor gi ñun nag su jant sooyee nit ki dana indi ndox mu sedd dina indi glace dina indi fruit dina indi yu bare bare dana lala lala lal ba nga jàpp ne aljanna la nekk moo tax li saa imi farxataan yonent bi ne ku am nga ñaari kontante benn bi inda iftaarihi booy dog bi ci des inda liqaai rabbihi booy do booy daje ak sa borom kon ndekete lii yàlla teg nu ndeke lu baax la ci nun waaye amut lu muy tekki fa yàlla ci njariñ ndax yàlla dana ko lekk du ko lekk du ko jariñ du ko naan li tax ngay xam ne jaamu yàlla du dara fa sunu borom mooy koor bu leen lekk bu leen naan te mu waxoon yéen jul ñi kulu mina tayyibaati maa razaqnaakum lekk leen ci yu teey yu rafet yi ma leen defal ba noppi wëlbatiku ne zawru da yaa ayyuhal lazina aamanu kutiba alaykumu siyaam waaye nag ndax ci ñun rek lañ ko binoon mu ne kama kutiba ala allazina min qablikum kon ñun tamit nag nañ gore ndax ndekete ñu nu fi jiitu woon amoon nañ koor donte bokkuñ nu ni woore kon fa tilkumul asr al awaaxir min shahri ramadan al mubaarak ñu ne kon alqiyaamu wa duaa wa qiraatul quran te mooy taxaw ci guddi yi muy xiyaamu layli ñu ngi koy def fii ci jàkka ji xiyaamu layli su deux heures jotee ñu tàmbali ko bokkut ak naafila gi nga xam ne dañ koy def muy tarawiix yi nga xam ne tarwiixa la tudd ak taraawix tarwix dañ daan def bu ñu julee ñaar rakk noppalu saxaaba yi ko daan def suñ julee ñaar rakk noppalu du forcé moo tax bu fekkee wéruloo bul forcé sa bopp bay daanu charia kenn du ko defee noonu rawatina loo xam ne lii dañ koo sopp day sunna mu baax daje gi nii ginnaaw yonent bi lañ ko def ci jàkk kon kii julli nay def ndànk su sonnee àggal suuf noppalu ndànk daal di jógaat nekkati ca rawatina nag nga bëgg a def naafile gi ba noppi bëgg a defaat xiyaamu layli bi kon yooyu yëpp yu am solo la wal iksaaru fi sikril quran fi xiraatil quran nit ki tamit nay jàng alquran lu bari ndax alquran ci weer wii lañu ko wàcc alquran ci weer wii lañu ko wàcc loolu it kon baax na lool waaye ñett yëf yi ci nekk mooy bëri yërmande weer wi dañu bëgg dañu laaj nit ki am yërmande dolliwaat yërmandeem waaye dañu bëgg tamit nga am ci ak njéggal di jéggalee soo seetlee ne ne yonent bi alayhi salatu wasalaam wax ne awaluhu rahma wa wasatuhu maxfira wa axiruhu itqun min annaar kon yow it da ngay jéem a yërëme teg ko ci xadiisub irhamu man fil ard yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi ci kaw suuf yàlla yërëm leen kon weer la woo xam ne yow dangay da ngay jéem a essayer def ci sa xol njéggal ak yërmande ndax kat loolu rek lañuy ñuy nekk ci sunu borom mu jéggal ñu yërëm lu goreel nu ci sawara yàlla na nu ko defal nun ñëpp soxna Aïcha radiallahu anha wax na ne kaana sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fi l asri al awaqir maa laa yajtahidu fi xayriha nee na daana ci am yitte ci weer wi fukki fan yi des nii yoo xam ne daa ko def lu jiitu woon kon fukki fan yooyu nañ yeesalaat sunu pëstéef yeesalaat sunu doxin yeesalaat sunu yitte ci biir koor gi waaye buñ dàcc jaamu yàlla loolu lay bañ dàcc mooy jaamu yàlla koor gi jàpp la ba nga far mere wala nga nga nga nga gecc ci sa xol déedéet gën la yeesalaat mel ni ba ngay ba ngay attaqué koor gi noonu ngay mel ngay ngay defaat pour sa xol sa pas-pas yeesaat wa fiha fadlu laylatul qadr kon yooyu wax nañ ne am na ngëneel lool ndax bari le na ko wàccuk alxuraan rek doy na sëkk ndax alxuraan képp di ko déglu rek di ko déglu rek fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun suñ dee jàng alxuraan dee leen ko déglu dee leen ko xerewlu ngir lan ngir ñu am yërmande yàlla gis nga yërmande yàlla jaam bu ko soxla dootoo soxla dara ci àdduna li ñu yàlla teg daf nu koo teg nu di ko def bu la ko defoon ba nga def ko ba noppi te fayu la ci dara tamit moo ko moom sañ na ko waaye yërmande yàlla kenn mënu koo ñàkk moo tax bu nit faatoo nga naan rahmatullahi alayhi mooy yàlla na ko yàlla yërëm yërmande yàlla yàlla na nekk ca moom soxna Aysa moo xam ne laa alamu rasulallahi qara al quran kullahu fi laylatin wala xaama laylatu ata asbah wala saama zahran kaamilan qat xayru ramadan nee na moom xamut lii nag waxi boppam la soo déggee xadis maanaam dañu toog di waxtaan ak moom ginnaaw yonent bi mu ne man xawma ci yonent bi aw weer wum jàng alxuraan ba mu àgg benn yoon mbaa mu woor ko ba weer wa mat sëkk mbaa mu taxaw ca guddi ya ba weer wa jeex lu dul weeru koor loolu lay won ne la fonkoon na weeru koor kon ni ñuy soxlaanu di laajte ak di jàngale su weer wi jotee ndeke ñoom it noonu lañ daan jàngale kooka nag dem nett li ay waxam mu ne laa aalamu la wax xaw ma ci yonent bi waxut ne xaala rasulullah sallallahu kon gis nga ne solo al imaamul buxaari yi wax na ne fa xad i'takafa fi l aami alladi qubida fiihi ishrina yowman nee na yonent bi fonkoon na ci liñ tuddee li'tikaaf te mooy sax fi barab tuddee ko wéetal yàlla ngir jàmm ko jagleel ko suñu borom ngir jàmm ko loolu lañ tuddee li'tikaaf fan yi ku ko ci man la ca gën a gàtt mooy ab bés ab bëccëg ak ab guddi soo ko amut foo ko defee su la neexee su fekkee am nga fa doogu sa kër fasal li atikaaf da gis koo xam day jàpp ne moom su ñëw ci jàkka ji rek du def genn yenn jaamu yàlla yi déedéet am nga sa kër néeg boo xam ne kenn defu fa dara defar ko ba mu baax nga toog fa yow mun walay la mooy xëyal tey la samedi nga ne sama waa ku ma soxla tey damaa soxla sama bopp ndax damaa jagleel sama bopp sunu borom damay ber sama bopp ngir jagleel ko yàlla lan nga fay def waxuma sa xam xamsa ndax loolu farata la waaye yi nga xam ne moom lañ sopp ci ab jullit muy naafila muy jàngi askar muy zikar xiraatul quraan yooyu nga fay def xalaat sa boroom soo fa fanaanee samedi bu bët set dimanche su fekkee da ngaa fajaru dugg bu bu bëccëg bu boo fanaanee bët set ak dimanche nga génn bu fekkee dangaa xaar ba jant bi so samedi nga dugg boo demee ba fanaan dimanche bi bu xëyee boo xëyee dem liggéey lënd bi am nga yow mun wala la su fekkee nag mën nga koo defee ci jàkka alhamdulilahi rabbil alamin nga defee ko ci jàkka kon loolu am na solo ci weer wi la bokk ci yiñ sopp la imam Zuhri yi tamit wax na ko nee na jullit ñi saggale nañ li'tikaaf te moom de seen yónent fonkoon na ko lool kon yooyu ci sunna yi ñu war a fonk la bokk bokk na ci liñ solo ci soxna Aysa radiyallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi daana def ne isaa daxala al asr sadda mi sara wa ahya kon mel na ni ci biir kër gi am na fi wet gum dogoon nga xam ne loolu la ko tuddee ni fii dama fiy ber sama bopp daal di fay toog di fa jaamu yàlla ba ñëpp xam ne lii kër da ko def mu tudd ci moom li atikaaf ndax ku ne xam na ne kër yonent bi néegam ak jàkka ji benn la boo ko doon natt tey ji yaakaar naa ni te ñi fa dem toll ni poto bee ak fii nu toll te ñoom it seeni néeg sorewul dafa dafa dafa gàttoon te da nga naan dégg ñuy wax ci xadis yi sax indi na ko naan bu masaan jóg di dem jàkka ja day romb ci néeg Fatima di leen wax naan jóg leen jóg leen jóg leen kon niñ dëkke woon nii te boo demee ba ca penku néeg ba nga xool gis baabu Jibril bañ fa def ci xujuratu Aïcha radiallahu anha nga xam ne fi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam noppaloo ñu denc ko da ngay gis ne néeg bi dafa jege jàkka ji mën na am loolu mooy xikmaab li taxoon mu ne nañ ma may ñu hospitalisé ko ci soxna Aïcha boo demee boo ko xoolee rek li tax ndax man dem naa fa xool ko xoolit fi kër gi nekk muy bunt bi ngay génnee jëm baq ya waaye fi néeg soxna Aïcha di fare moo sa rëkk daanaka rawda bi sorewul ay mètre rek la kon mën naa am noppale googu la ci jubloon ba tax mu ne nañ ma may ma fare néeg soxna Aïcha aw la mu ca jublu sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci des mu ne ginnaaw xamut ci yonent bi mu jàng alquran kon beneen bi ci ci al azar ñu ne soxna sëñ abdullah ibnu abbas saalahu rajulun fi l adar wa saxiixun fiihi ay fi aqwal abdullah ibnu abbas saalahu rajulun ne ko kaana rajulun yaqumu leyl wa yasuumu nnahaar walakinahu la yashadu aljuma aw aljamaa fa xaala huwa fi nnaar mu ne ko ñun de dañoo gis waa joo xam ne dafa fonk lool day jaamu yàlla di taxaw su guddi jotee su bëccëg jotee di woor lool waaye moom daal daa sàggan lool ci julli àjjuma ak julli mbooloo dem ci jàkk di julli waaye daal bu koor gi jotee moom da ciy taxaw lool mu ne huwa fi naar ñu ne lan mu ne asbaabu loolu moom asbaabul asbaab la wax maanaam mën naa sabab yu duxiluhu naar ndax lan saggante gi mu sàggane salawaatul xam sa eh, ak julli ajjuma ak julli ci mbooloo ndax yonent bi dégg woon la mu waxoon ci koo xam ne da ngaa tardé ajjuma tardé waat ajjuma ñu taxawal man ma wër seen kër yi dem di ko lakk foofu la ñi nga xam ne dañoo saraa hadis bi ñoom it foofu lañ teg loolu ñu ne kon asbaab yi la wax ndax du ñu yonent bee ko wax waaye ci asaram la waaye nag lu wér la ci ne moom moo wax wax ji waaye leer boroom xam-xam yi leerale nañ ko noonu la yantahiyanna aqwamun an tarkihim aljumuat aw la yaxtimanna allahu ala qulubihim suma la yakunan min alxaafilin boobu xadis abu daawud te saxiix la kon bii moo gën a wéral bële kon ajjuma kenn du ko sàggane ku ma nit del julli si ci jullig mbooloo gi loolu lu am solo la kon saalixatul amal bokk na ci liñ ci santaane ci asrul awaaxir min shahri ramadan al mubaarak salihul amal nag bokk na ci ah liñ tuddee as sadaqa maanaam saraxe nga xam ne moom dañ koo jagleel woy ñàkk yi bokk na ci it ak zakat bi gis nga zakatul fitri sax ci biir fan yi lañ koy def ndax wax nañ ne mënees na koo def lu jiitu benn bés ak ñaari bés ci alfakihan yi boo ca demee wax na loolu waaye am nañu ubbee ñoo xam ne nee nañ manees na koo def ñaari fan wala yu mel noonu waaye ci buñ ne tey jii la bésub korite gi ñu ne weer wi feeñ na fajar gi bala ngaa julli ji waxtu woowu lañ daan génne liñ tuddee sakaatul fitre bi insha allah xool xadis bi ne man jalasa baada salaati sub yaskurullah xata tatlu a sams summa salla tey kaana lahu ka ajr xajjatin aw umra kon jullit bi liñ koy fayee loo xam ne su ko defee am ci lu tolloog nangam lu bari la ci saf a 310 saxiix nga xam ne loo turux la baasa biha dañ ne hadis bi nag am na ay yoon yu bari bu ci ne di dëgëral morom jacees mooy ki julli fajar su suba ci jàkka ji di tudd yàlla moo xam wala këram moo xam ba yor yor jot wala boo xëyee boo yeewoo ba jant bi génn lu tolloo ko gopp su boobaa sañ ngaa naafila waaye fekk génnut lu toll noonu sañoo naafila su ko defee nag dafa jubla wax rek ne diggante bi ku ciy farlu yàlla dana la bindal yoolub ku aj makka wala ko umra sallallahu alayhi nga xam ne kon loolu mel na ni kon bëri na lu nit di amee tuyaaboo kon bés yi ku ci def ak jaamu yàlla dañ koy ful ful loolu lay firi boo ci defek naafila nu fulal la fay ga ba mu tolloog jullik farata ci lu dul weer wi moo tax raqaba bihi l ulama min ala hasbi ma rawa min sayidina muhammad sallallahu alayhi wa bi ijtihaadihi uh, fi hadi al asr min shahri ramadan al mubarak kon mel na ni di ci far lu baax na ci lool te jaam bi day góor góorlu di baaxe moromam jaamam ndax bés bu set nga tàllal say loxo yàlla may ma yàlla dimbale ma yàlla defal ma yàlla may la moo tax te kat yàlla kum may am nga kum xaj ñàkk nga inna la ata min al wara xirmaanu wal manu min rabbihumo ihsaanu loolu la sëñ Tuubaa wax nee na it ku bëgg teraanga toppal yàlla teraanga ci yàlla lañ koy jële ndax yàlla mooy terle wa in aradta nayla issin laa yarim fa tablu bi tiqa arabikal karim nee na ragal yàllaay tax a maye teraanga ku bëgg teraanga toppal yàlla loolu Sëñ Tuubaa wax kon li ñuy wax nii mooy ay waxam moom loolu tax mu naan damay yeesal sunna damay yeesal sunna mooy yi ñuy santaane rek di soññ jullit bi pour mu góor góorlu ci moo tax mu sant ne kun mutaassisan bi rabbikal jamil wa man taassasa bi xalqin fazalim nit nee na su la yàlla teralee soo ko sàkkoo ci moom tedd nga bu la teralee tedd nga ba faw waaye ku la teral ku dul yàlla boo lëggatee mu toroxal la wala mu suufeel la kon wut leen teraanga ci seen borom bu ko defee kon nit yi dañ ne li muy def na góor góorgóorlu ci ay njabootam ndax riwaaya bi wax na ne yonent bi da daan yee waa këram da daan yee waa këram ci la bokk looloo tax kon ñu santaane surtout nag li ma waqa min al mughriyat fi hada al asr jamono bi ñu ne lu mën a réeral nit ki lu mën a sànq sa njaboot dafa bari kon li ngay def tamit ci jamono yi fukki fan yi bu ñu la waxee ne farlu ci bul fàtte sa njaboot dee leen soññ de leen yee di leen wax góor góorgóorlu leen ci nangam ak nangam bañ leen a bàyyi noonu rek ñu gis la ngay génn di dem mën naa réeral mbaax gi nga nekk ba boo boo demee boo lëgëtee boo fi boo fi jógee duñ ko dundal ngay ngay joxe ñu di ko gis ndax si aw alaaniya joxe bu fekkee dem nga ba dëgër ci ne soo ko defee nga def ko mu fés ak mu mu ñàkk fés ñoo yem ci yow sa xol bu boobaa mën nga koy def ndax nit mën na roy ci yow li ngay julli tamit ak di ko naafile yëpp soo demee ba nga xam ne ci sa biiru xol xam nga ne def ko ci nit ñi ñàkk koo def ñoo su boobaa mën nga koo defee say waa kër nañ koy xam su ko defee loolu dalay yokk tiyaabo te dañ koy dundal waaye rek mel ni banu Israël ñi yónne suñu borom doon kaanoo li kaanu xaw yatanahawna an munkarin faalo nga xam ne moom nit koo xam ne loo gis ñu def ko loo xam ne naqari na yàlla du tax nga ne bàyyi leen yow daal dangay góor góorgóorlu sa bopp rek baax na lool waaye liñ bëgg mooy jaamu yàlla goo xam ne ci yow lay tàmbalee dem ci ñi nga xam ne ñoo la wër nga jàngal leen walla bi sama kaanu yafaloo kon loolu jëf la joj yàlla da koo ñaawloo nga jàngal leen waxin tontu. respecté mag war ma lépp dañ ko war a jàng surtout ci weeru koor yi nga xam dañ la wax ne bu nit ñëwee di la wax waxi nit koo xam ne kii comme waxi nu nit ku réer wala di la jéem a ŋañña ko saaga ak def yëf ne ko man damaa woor dañu bëgg nag nga miin ko ci miinal ko ci sa njaboot moo tax wa ida xultum faadilu walaw kaana da qurba nit ki na nga maandu doonte sa jegeñaale sa jegeñaale sa soxna sa jege jegeñaale sa bokk sa jegenaale sa rakk sa mag sa nangam bu ko defee ñooña buñ buñ buñ déggee ci yow loolu gis message bi jàll ca ja ca des parce que koor war na am jeexital ci jullit bi li nga daan sonn nii bàyyi bàyyi lu bon ci bëccëg bi kon su fekkee sa bakkan miinoon na mooy yàlla léegi essayé koo wacc nag benn yoon daan nga def bés bu set nga tux lu mat ñaari paquet cigarette koor gi bëccëg bi yëpp doo ko tux bu ngoon jotee boo doogee xëy na ñaar ngay defoo wala ñett continuer ci noonu bu yàggee ngay wàññi bu nga bàyyi ko ndax bakkan dafa baaxul bakkan mooy def bu miinee dara du ko wàcc mukk ci àdduna moo tax ñu ne booy jaamu yàlla bëgg a bëgg a téye sa bakkan bu dëgër bul tëb tëb benn bés forcé ko nag ne ko bàyyi moo tax ñu ne yàlla bi sariya wàccee xëyut xëy ne leen bàyyi leen sàngara bàyyi leen nu mu tuddati euh, xërëm yi bàyyi leen euh, yu bari yu bon yu hiñ daan def waaye day wàcc benn par benn par benn par benn waxu tëb tëb tëb woor leen aj leen nangam leen waaye gis nga bam yonent bi ñëw ma dina ca ñaareelu at ma ca lañ soga woor weeru kaar